survala waaw a ah, ne sëñ Sidi mii. sëñ Naar nekk nekk na fi. sëñ Naar nekk na fi. mu di ko seeral sama diggante ak moom. mu di ko seeral diggam ak sëñ Sidi. sëñ bi mu ne daana seeral sëñ Naar diggam ak sëñ Sidi mii. loolu noonu noonu rek la demee. nee na kon loolu noonu rek la demee. ñu nekk ci loolu ba egsi fii. nee na ñu nekk ca loola ba egsi fii. kon day loolu sori na ci man lool sama diggante moom. nee na kon loolu sori na ci moom lool diggam ak sëñ Sidi bi. dolli ci li nga xam ne moo fi nekk moo moo moo nekk ci kër gi. dolli ci nag li nga xam ne moo ko nekkal ci kër gi. xam nañ la fa nekk bu baax. nee na xam na la fa nekk bu baax. waaye moom mi day wàññiwu ci yàqu ci dara waa wàññiwu ci dara. nee na moom sëñ Sidi mii. dana ca kër ga wàññiwu ca dara yàqu ca dara. bu fekkonte ne mënees na caa dolli dara xam ne comme dolli da ko dolli waaye wàññiwu ko. te bu fekkonte ne mënees na caa dolli dara kon mu ne ko dolli waaye wàññiwu ca dara loolu moom ko mooy dëgg ci man sama digg. nee na loolu mooy dëgg ci moom. digg moom sëñ si moom laa yëg ci moom moom laa xam ci moom. nee na loolu la yëg ci moom loolu la xam ci moom. kon nag a doole gën a gën a sant bu baax baax baax. nee na kon mi gën a sant bu baax baax. gën a gërëm ci taxawaay bu baax a baax. di a gërëm ci taxawaay bu baax a baax. Eh, loolu ni mu koy waxee rek eh, taxawaayam bii. nee na ni mu koy waxee rek taxawaayam bii. moom damay dama koy boole si ñi may ñi may seeral sa ñi may seeral sama yeesal gu may sa sama jaayante ci sama diggante sëñ bi. nee na taxawaayu sëñ Sidi da koy boole ci ñi nga xam ne day bokk boole ci yi muy seeree. ak fetli laxasaayam ci diggam ak sëriñ bi. sama jaayante sama diggam ak fetli ak jaayantam diggam ak sëriñ bi. di ko fetlee sama laxasaay sax dàkk ci liggéeyal sëriñ bi. mais fas yéene sax dàkk ci liggéeyal sëriñ bi. loolu moom laay seere moom moom moom laay seere sama diggante sama borom. mooy def di mooy dindi. loolu lay seere diggam ak boromam mi nga xam ne mooy def di dindi. ko seere fi bi mi nga xam ne moo tax suñu borom di def. di ko seeral sëriñ bi bi nga xam ne moo tax sunu borom di def. moom laa koy seeral. nee na moom la koy seeral. kon nag euh, du mënuma wax sax fi ma àgg ci sama làmmiñ. nee na fi mu ko àgg sax ci xolam mënu ko wax ci làmmiñam. te moom mii moo ko fa moo ko moo fa yóbbu. te nee na sëñ Sidi mii moo ko fa yóbbu. kon nag euh, ngeen seeral nag sama xol sedd. nee na kon ngeen seeral na xolam sedd. sama xel dal na bu baax a baax. xelam dal na bu baax a baax. sama yaakaar dolli ko na bu baax a baax. yaakaaram dolli ko na bu baax a baax. maa ngi ñaan rek ci baaxu sëriñ bi. nee na muy ñaan rek ci baaxu sëriñ bi gën a gën a gën gën gën leen a gàttandoo ak tawfeex tawfeex tawfeex sëriñ bi. gën leen a ak tawfeexi sëriñ lépp nag biir ak bitti. ci lépp nag biir ak bitti. di ñaan itam sëñ Sidi mii. gën koo sàmm. sunu borom gën koo sàmm. ko fee bàyyi lu yàgg yàgg yàgg. lu yàgg yàgg yàgg. ñu dolli ko wér ak kattan rek. dolli ko wér ak kattan rek. pastéefam bii. pastéefam bii. ak yitte ji ak yitte ji. ak yitte ji. ak yéene ji mu jógee. ak yéene ji mu jógee. mënees naa wax ne mëne dara mënatu cee dolli ko. mënees naa wax ne dara mënatu cee dolli ko. lépp mat na sëkk. lépp mat na sëkk. waaw waaye nag yàlla moom eh, yemul fenn. waaye nag yàlla moom yemul fenn. danay ñaan foofu yi mu toll. nee day ñaan fii sëñ di toll. suñu borom di ko yokk muy wéy. suñu borom di ko yokk muy wéy. ba àjjana incha allah ba àjjana. la la mbooloo mi sëriñ bi mu ne auzu billahi min asheytaan arrajimi bismillahi rahmani rahimi allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim bi nee na mi ngi nuyu bokki taalibe yi yëpp nee na mi ngi nuyu bokki jullit yi yëpp nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ci liggéey bi jërë ngeen jëf nee na wax ji du gudd. nee na da leen di seereel ni. jëfi murit saadix. jëfi murit saadix. moom ngeen jëf. moom ngeen jëf. ndax li ëpp ci mbooloo mi. ndax li ci mbooloo mi. kenn ku ne. kenn ku ne. xar ma nga indi. xar ma nga indi. joxe ko. joxe ko. ngir jëm yàlla ak Serigne Touba. ngir jëm yàlla ak Serigne Touba. xala moo koo tabaskee fa sa kër. xala moo koo tabaskee fa sa kër. murit saadix nag. nee na murit saadix nag. noonu lay mel. noonu nii lay mel. day fekk la gën. day fekk la gën. mu nangu koo muñ ngir yàlla. mu nangu koo muñ ngir yàlla. jox ko Serigne Touba te nee na loolu yi ngeen def nee na ba lim ba mu fa daa yóbbu yokku na xar yi yokku na gën ñoo rafet aw bay amu ca xar mu jigeen amu ca yëpp xar yu baax la lañu xar yu mat sëkk nee na lim bi nag jërul tudd yéen ñëpp xam ngeen ko lan ca boole ci hëddiyaat xam ngeen ko kon nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nee na li Cheikh Mouhamadul Mountakha wax tamit nee na loolu doy na sëkk nee na xëy na yéen ñëpp du ñàkk ñu ko jottali ba ñu mën koo dégg nee na sant nañ ñëpp taalibe yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew nee na mi ngi sant njabootu sëriñ bi yëpp rakk yi yëpp bàyyiwul kenn ak doom yi yëpp képp koo xam ne rek dugal nga sa jëf. ci liggéey bi sant nan la bu baax gërëm nan la bu baax nee na yàlla nañ ko teewee na gën a déwén nee na liggéey bi rafet na lool xolam sed na lool jëf ngeen jëfi murit saadix nee na loolu yi moo dig murit moo dig taalibe waaye képp koo xam ni loo am rek taf ko ci sa bopp te naa sëriñ bi laa yaakaar nee na loolu munta nekk nee na loolu nax sa bopp rek la nee na sunu maam ya dañoo fa woon seen lépp jox ko sëriñ bi bàyyi seen i bokk bàyyi seen bopp nee na loola moo ëpp lépp te noone ñoom la ñuy roy waaye nee na yéen seen jëf yii loola rek la indi kenn ku ne xar ma nga indi fii ngir jëmmi yàlla ak sëriñ bi xalamoo tabaski xar ma noonu ci sa kër kon nag sëriñ Tuubaa dalaa gënal moo tax ngeen def ko jërë ngeen jëf fu waay nekk tàllal nangu ñaan amin